mom lu mu moy 3e mandat ñun lu ñu nam ma mooy lu ñu yoon may ci ay sañ-sañ ba mëna jëlé lu fi nekk mom nak néna mom lu ko neex lay def parce que mom moy yoon fofu nak la naxé bopam mom ci bopam ci élection locale yi bañ ko duma ba duma ko ba xamatul fan lay fan lay jaar mu taxaw ne mom ala kuliyaal sax lolu mom nekkul metti ci mom parce que mom musul gagner Dakar mom moko ko wax ñëpp dégg ko gémmiñam wante ba tey waxul askanu Dakar lan la def ba gagner soit disant élection de yi 2017 mooy bu mu fokkatee juróom-ñaari siège député yi te bu mu koy def mu ngi koy def ci ñetti waxtu ci guddi dal di jitté di ordre de mission di mu xam ordre de mission du jall mu xam que effectivement parrainage bi dina défé lool pour mën invalider liste Yewwi Askan bi ndax parrainage parce que luñ ko door fi ci élection locale yi euh, lu ci pour mu mat cent voix wax dëgg yàlla bëritul té luñ ko door fi bi Dakar mënul daw ba dapi ko kon nak lu def moy comme dafa day jaay ak lan ak yabel wax ji moy lan moy coalition yewi Askan qui dafa am ben mandataire mandataire bi mi ngi tuddu list Fall Fall ci liste buñu déposé liste déposé direction générale des élections génnee bokout nous nak ñoo jël suñu liste ñu falsifier suñu liste Daldi dindi ay def lu leen neex parce que amon nañ monde. ci wante lolu yeb amul ben problème parce que nous avons ko gis ñaawteef choses. def dañu dem choses. di di code électoral moy loi bi. loi bi nak wax article 179. ci Nous avons suñu déposer Nous ba nee 76 jours bala jouru élection yi moy danaka dimanche dernier nee à partir de 76 jours yooyu moy dimanche dernier Yon may direction générale des élections juróomi fan donc danaka ci gàttal tay ñu ngi mercredi donc dese len encore yenen ñaari fan pour ñom ñu mëna bind suñu mandataire wax suñu mandataire que dafa am ci liste bi ay ay élément wala ay ñit yu on a invalider liste bi kon am nañ ko ba ajjuma wante ñun bañu gisé gisee ñaawteef def ñu ne ñun duñ leen may ba ajjuma luñu may luñu yoon may ci sañ-sañ te ñëpp gis nañ ko demb ñëpp dégg nañ ko demb demb suñu dak suñu doomu nday suñu xarit monsieur le maire Pape Madiop Diop ci coobareem bopam taxaw na nee mom day désister lolu yoon moo ko may ont droit ne man bëgguma bok lépp ko gis lépp ko maintenant nous ñu xam lan la sommes nous, nam ma ci ñaawte bu ñu liste ñu ñaari nit là, yi la nous. nam ci ñun nous nous sommes ngi leen di nous cohabitation donc nous ngi ci comme nous dañu Nous nous falsifier suñu liste nous nañu nous ci là, nous bind nous liste là, Nous remplacer leen te yoon nous PGE notifié le mandataire wax ko liste lii manquement bi wala lii irrégularité irrégularité yi sur le mandataire à partir de ajuma yon may quoi a un ñetti fan pour me rectifier yon nee rectification yooyu un remplacement de candidats inéligibles moi ay candidat yu am ay casier judiciaire euh, yu am ay condamnation Voilà Tenez nee na day am sans préjudice de l'ordre d'investiture wala mu substitution de pièces périmées dans ce carte d'identité périmée à partir de ajuma joxaat nañ la ñetti fan pour changer nit ñooñu parce que c'est une pièce d'identité dafa périmée wala ñu ne mu ay dossier yu comporter ay erreur matérielle erreur matérielle ñoom ci lu nous avons ak ce bu ñu def loolu dañuy considérer été erreur matérielle ce daanaka dañu bëgg a gëmloo askan wi ni que ñun ñii respecté wuñu parité mais dama ne loolu sax su amoon yoon lu wax article 179 lerné. na tey nag ba direction générale des élections ñu ne dañuy jëm rectifier lui, ñoom ñu ne duñ ci duñ ci ànd ñu daal di ñaari huissier de justice huissier de justice dañu nekk ay agent assermenté nous seen liggéey mooy lan mooy fépp biir Sénégal am droit ñëw taxaw pour d'être constat pour ëllëg suñu mes tribunal ñoom ñu ñëw constater taxaw ci juge bi ne ñun bëss bi ci bi ci waxtu bi li lañu gis gaay dem fofu ñu ne leen buñ fa dugg loolu indi bi ci direction générale des élections policiers yi lay def ba mairie de Dakar amul lay def de Dakar par décret présidentielle amu ci ndam mu jël maire Dakar tëj ko ci kaso bi jaay ko doole fokkati mairie ci loxoom 2017 yéen ñëpp gis ngeen lu mu def ak juróom-ñaari siège ak ordre yi bi yoon moom xam na mu ngi may gis mu may setaan mu may dégg xam na bu baax a baax a baax cohabitation day am dama ne président Macky Sall su ma ci kaw Dakar problème bu Dakar doul Abdoulaye Diouf Sarr du moom ak ñun problème bu Dakar tuddul Amadou Ba du moom ak ñun problème bu Dakar doul Alioune Ndoye du ak ñun problème bu Dakar et Macky Sall te dañ ko l'identité. comme moom nee Dakar jàmm du fi am moom tamit na xam ne ne jàmm tamit du ko am parce que lii kenn du ko nangu moo tax may sàkku ci askanu Dakar nañu taxaw tem may sàkku ci ndawu dakaar yi nañu taxaw tamit duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg moom nag moo xam lan la ko mbir bi jaral comme moom nee na ala kulli àll Yewwi Askan département de Dakar naru ñu bokk moom na xam lan la ko mbir bi jaral ñun tamit xam nañ lan la ñu mbir bi jaral kon nag ñu ngi biralaat suñu kàddu ñu ngi ñaax askanu Dakar nañu taxaw na ndaw yi askan yi eh, na ndaw yi Dakar yi tamit taxaw te tamit Mon président Macky Sall tamit mi ngi jéem a xool naka lay jalgati listu yewi askan bi ci département de Mbacké département de Mbacké département de Dakar sont len tegee ensemble danaka ci gàttal mët na presque 15 députés presque 15 députés ci ñaari département mom nak fu mu nekk tey département yu am ben candidat le département yu am ñaari candidat Mon loolu mom tegu ci mom problème am moy département yu am juromi député ak département yu am jurom ñaari député dama né Dakar président Macky Sall xamna na lu ko fiy xaar Mbacké xamna tamit lu ko fay xaar kon nak dama né askanu Dakar nañ taxaw tem noonu ndaw yi taxaw ba ñu xool nag mbir bi nu muy parce que nak dëkk bi ñëpp ko bok ñëpp ko bok nañ ko tek ci yoon fonctionnaire yu nek direction générale des élections nañu xam lan la leen mbir bi jaral lan la leen mbir bi jaral bu fi kenn xalaat ne ni une seconde da ngay def lu la neex tek ci nag wekk ko ci maa tey te dara du ci fekk maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf mbokk